تقل بشرعه بها يسعد الآوي إليه فيسعد اللهم صل على محمد سيد البشر وسافع المصطفى في البشر ورثنا هدى عنه فأكرم بإرثه ورثنا هدى عنه فاكرم بإرثه فبنزله أفنى حياة وبسه فكم تاب من حرب به بعد خبزه لنا الناس درا سيرقه يوم بعثه ولكن لو في النار سلم ناس خسدوا

ويعمر مسجده لها شرك منهما أشرفي مهند ورمح ليلي وسهم مسدد اللهم صل على محمد سعيد البشر وسفي المصطفى مت إن عيشك أنكدا فها هو في الدنيا وفي الدين سيدا يقعد به جيش ويعمر مسجدا لها شرك منهما أشرفي مهند ورمح رديني وسهم مسدد اللهم صل على محمد سيد البشر وسف المصطفى في المعسر فقب أنة للمشركين وأهد فكم أنة للمشركين وأهد وقد هد من بنيانهم كل ردهة يقربها في اللعبة صنع برهة دفعنا به عنا دجى كل شبهة إذا انتظاها البرهان فالإلكم محمد اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المسبع في الباسر تخلص للتبليغ عن خير فهد تخلص للتبليغ عن خير فهد وللحق والتحقيق من خير شبهة ولما تنهاقي بطعم وفكهة دخلنا به في الدين من كل وجهة فكل سبيل فيه يا أحمد يحمد اللهم صل على محمد سيد البشر وسفي المسبع في المعزرة هو الملهم المحال إليه المنبه هو الملهم الموحى إليه المنبه فلا لب في الألباب بيشبه لبه وإذ جاء بالتخيير rifa axtaara rabbahu dana laylatal israa'i mimman ahabbahu wa saanihi ruuxul quud siwa naasu hujjado allahumma salli ala muhammadin sayyidil basar wa safil mustafa ومهانة توادع عن ذلة ومهانة وخام بحق الله دون استهانة فأدناه منه حاملا لأمانة دنو واصطفاء الله دنو مكانة وقد كان في حالاته Mamadou daan ñëw ci gàmm gi di ànd ak ñun ñii man mii sama diggante ak Baye Ndiakhate Cissé ci gàmm googu ci la sosoo parce que baay Baye Baye Baye Alpha daf daan ñëw bu ñëwee dafay yendu dafay fanaan ba ci suba si mu soog a ñibbi bi mu egsee tisbaar jot Baye Alpha nodduloo ma tisbaar ma noddu tisbaar Baye Ndiakhate jàpp ci sama loxo dugal ma ci biir néegam fasante ak man kóllëre loolu mooy suñu kóllëre gi dund ba bisub tey Baye Alpha di ñëw ñuy coordonné bàyyi Ndiakhate ba bàyyi Ndiakhate ñëw Thiénaba ñëw ci sam temps yooyu damay soog a ñibbi si jóge Abidjan bàyyi Ndiakhate daal di ñëw Thiénaba wax sam papa ni ko damaa bëggoon sëñ Mor nga jox ma ko ma yóbbu ko daaru parce que daaru am na ay usine am na ay liggéeyukaay bu fa nekkee dina mën a am lu mu jàpp loolu mooy sama tànk yi ma indi woon fii Souleymane fekk ma fi moom mii ci école franco arab bi mu sampoon fii ci la Souleymane doon jàngee su lay nekk fi ñoom ñi ñëpp màggat ñoom ñi fekk si ma fi fu ma mës a nekk rek xale yi fekk si nañ ma fi ba Souleymane am fi soxna fa tabaarakallah waaw daara ji moo nekk nii waaw daara ji ya nekk nii ba tey waaw kay école lii moo nekkoon école bi waaw école baa nga fële ah waaw lii mooy daara école franco bi moo nekkoon fële waaw léegi moom mii nag euh, ci mbaaxam ak ci mën a organiser ak mën a yëkkati nit ba mu am daraja ji mu war a soxla ci ay kilifaam moom dafa maa defal loo xam ni Baye Cheikh yaa ngi may déglu de dafa maa defal loo xam ni mënuma ko koo fay parce que Baye Alpha dafa ñëw mu tëjoog moom ci néeg ñuy waxtaane seen baatin ñoom ñaar moog Baye alfa ñuy waxtaane seen baatin ba moom mii mu am lu mu feeñalal baay alfa Baye Alpha ne ko loolu dama ko soxla mu ne ko dinaa fexe ba nga jot ci ba bàyyi alfa ñibbee cana ba ba mu am ñetti fan moom mii mu woo ma mu ne ma ba sëñ alfa kat li mu ma doon laaj mi ngi won sama wet jigee woon na ma trop mënoon naa koo jox waaye da nekk fii di ndaw nekk sunu biir di jàmbaar nu wóolu la ci biir wóolu la ci biti ma bëgg woon sëñ alfa ni ko kat ki ngeen fi am ñun wóolu nañ ko moo tax li mu soxla woon mu bëgg koo teg ci sa loxo nga yóbbul ko sëriñ alfa moom mii mu ni ma nag soo demee yàgg koy jàngal te yonent bi nee na képp koo xam ne sallallahu alayhi wa sallam jàngal nga nit aw araf sëriñam nga te lii ma lay jox boo demee yàq koy jàngal foo ko fekk ci mbooloo boo ko nee Baye Cheikh Sarr moo ma yónni la ngeen doon waxtaane la ma jox dina fa bàyyi mbooloo mi te dem wuy la noonu la demee bi ma ñëwee ci peru nga kër gu mag gi laa ko fekk ak ay mag mu toog ci fauteuil bi ñu toog ci suuf ma ñëw nuyoon teeg moom mu ne ma ana waa Daaru Xudóos ma ne ko ña nga fa ana góor gi Cheikh Sarr ma ne ko ma nga fa moo ma yónni sax nee na la ngeen doon waxante jox na ma ko pour ma indil la ko mu daal ni ñokket ànd ak man ba ci bâtiment bi ci biir mu toog ci kaw fauteuil ma toog ci suuf daal di koy génne lal ko bi ma ko lalee ba commencé di ko ko wan mu wàcc ci suuf toog ci suuf ma wan ko ko wan ko fekk moom mii daf ne ma soog ko wanee nag ba mu ba mu ne la baax na ba mban ko li li ma ci moom may naa la ko loo ko laaj dina la ko jox du loolu nga ma waxoon ba Cheikh ma dem bi ma ko wanee ba pare baal fa daal di ree daal di ay waa ji sëñ Cheikh Sarr moo yéeme daal di lem def ci poosam ma ne ko ah am na lu des de mu ne ma ne ko neewoon na am na lu la ci war mu ne ma sallaw am na lu ma ci war wax na la ko ma ne ko nee na may na ma ko nee na naa la wax lu ma soxla lu ma bëgg nga jox ma ko Baye Alpha daal rek ma waa loo war a bëgg sëñ Mor néew ma loo bëgg de dana ma sëñ Mor loo war a bëgg ma ne ko nag li ma bëgg nag mooy dangaa am waajur woo xam ne seen diggante dafa neexul te yéen ngeen di ñaar ñu baax muy Oustaz Alioune Guèye wax ko xam naa média ci la nekk mais loolu wàññiwul dara ma ne ko Oustaz Alioune Guèye dafay nit nit ku baax ngay nit ku baax seytaane dox seen diggante man li ma soxla tey muy sama weexal ci yow mooy seen diggante jàmm am fi mu daan ni mu daan ni ceey sëñ Mor Baye Alpha daan ni sëñ Mor ñetti yoon daan ni ma taal bii day tey la ci masa nit masa ximbee ak mat ay gànj lañ doon wut rekk di ci roof waaye li des sama dund dootoo dégg sama diggante ak Alioune Gueye dara keroog la fayit kon loolu tam yiw woowu lu nu ci am ci moom mii lañ ko jëlee fa la kon Baye Cheikh looloo tax ma ne nañ fi jaar ñu ziar la ndax yaa masa doon buntu mag ñi bàyyi alfa mosu fee jaar te jaarul ci yow soog dem ci njaxat Baye Serigne Mouhamadou Li mosu fee jaar te jaarul ci yow ziar la waxtaan ak yow nga yóbbu ko mu soog a dem ci njaxat kon ñun tam buñ fi ñëwee xale yi dem ba jël gàmmu gi sedd ma ci ab teraanga ma ànd ak samay bokk samay rakk samay xarit samay doom ma ànd ak ñoom ñëw te maa ko yemaleen ndi su ma ko yëgle woon ba ndakaaru ay nit dañ ñëw gunge ma kon suñ ñëwee itam dañuy jaar ci yow ziyaar la fexe ba sa xol sedd nga ñaanal ñu xam nan la bu baax a baax xam nan sa toogaay bii li nga toogaale xam nan ko ci baatin ñaanalal xale yi ñu bëgg a tukki ñu ngi ci ñu bëgg liggéey ñu ngi ci ñu bëgg ñuy jàng bëgg njàng mi àgg ñi ngi ci ñu feebar bëgg wér mi ngi ci man mi ci laa bokk ñuy sëy bëgg seeni sëy dëgër ñi ngi ci ñu bëgg doom ñi ngi ci ay soxla la ñu feese ñaanal ñu ci yàlla yàlla faj ajo yi ñu nit ñoo ngi lay ñaanal yàlla na yàlla gën a guddal saw yàlla gën laa wéral teraanga bi ak martaba bi ak ijaaba bi yàlla yokk ko lii moo doonoon kàddu yi suñuy xarit rek la ñu àndal ak suñuy mbokk ak suñuy doom yàlla na yàlla dimbali lool moo doon kàddu yi wàcce na ba yëpp ña nga lay nuyu yëg nañ ne sëñ sëñ jibi ci suba fi la jaar parce que démb ci ngoon woo na ma waxtaan ak man wax ma programme yëpp ma ne ko ñun dañuy gont mu ne moom dinañu jiitu ci yow lay jaar bu fi jógee soog a dem nag fa tabaarakallaahu kër Birane soog a dem kër Ndiakhate fa tabaarakallaahu kon lii moo doonoon kàddu yi ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan nga ñaanal mbooloo mi. salaam ñu jéem a delloo kàddu rek kàddu cant la kàddu cant yi nag ku dégg kilifa gi ni mu waxee te xam maanaa waxam da nga xam ne démb la woon waaye nag olof yi ñoo wax saabu bu jëf beesee cant bees te wax dëgg yàlla ku déglu ni mu waxee ak kàddu yi fam see ci démb ba tey nga xam ne ko dëgg la te it ku am kóllëre la te it ma ngay sàmm ko la ndax bëri na bëri na koo xamante ni am nga mbir mbir ma jak nga fàtte la la ko mayoon loolu moom dalul ko na sama benn maam daf daan wax ni seen jamono li tax mu metti koo lebal somp sukar bu la fayee somp kaani teyam ca ko baax na léegi nit ñi moom da ngay leble kaani lañ lay fay loolu amul fii li ko def nag mooy lépp day yàlla mbir su ko yàlla sosee te yàlla nangu ko rek day sax lu mu yàgg-yàgg it day gën a rafet la yonent bi waxoon ñu jàng ko ci daara ji mu ni yàlla wax na ci xadiisul qudusi yu ni wajabat mahabbati lil mutahaabina fillaahi wal mutajaalisiina fillaahi wal mutazaawirina fillaahi al yow al yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilla nee na yonent bi dafa wax ci xadis ni yàlla waxal na boppam ni sama cofeel warlul naa ko ñi nga xam ne dañuy soppante tama tax di ziyaarante di bokk jotaay tama tax nee na keroog ëllëg yowmal xiyaam ba nga xamante ne genn kër amul bu dul sama ker ñoom sama kër googu laa leen di di ba lijjanti ñi ci des kon du kolëre la kolëre gi yàlla na ko ci yàlla boole yàlla na ko yàlla dugal ci xadis boobu lépp lu ci yeneen bi digle yàlla na ko yàlla def ñu nit ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di sàkku ci yéen it ñaan ni ngeen koy sàkkoo ci góor ndax it ay ndaw lañ bëgg doogaa dugg ci àdduna soxla yi bari na yitte yi bari na rawatina nag mag ndaw yoo xam ni mag ña xañ ña la ñeen woon tam diis gann doon te yàlla woyefal na ko ci seen côté ñoom yow danga bokk ca ñeen yaakaar nga yenu ko da nga ci ak ci baatin kooku it ñu ngi leen koy dagaan ñu nit te ko sàkku ci yéen góor gi daal mi ngi kontaan léegi bi ñëw sëñ bi jëf ñoom ñëpp fi lañ jaar ba fi añee fi lañ bi ji bi tisbaar di jot kàddu yi yaatu na torop waxtaan wa neex torop moom it daanaka lii nga wax rek la fi wax bàyyi njaxat ak seen xame fi mu cosaane dem nga cene baag jaar yépp waxtaan nañ sànq ci bëccëg su ko defee kàddu cant yi waaw waaw nee na cene ba sant seek ñëpp ay doomi ndeyam lañ ñoom sëñ jibeeg ñëpp su ko defee yooyu yëpp waxtaane nañ ko fi sànq ci bëccëg su ko defee nag ñu ngi leen di delloo cant gi rek tey sàkku ñaan te la ma yàlla boole mhm. yokk mhm. waaw waaw waaw te te te te daanaka fi ñuy nettali nii sax ñuy dégg yaakaar ni ca commencé waaye moog sëñ ji bi bokk nañ daara ca mbos bokk nañ jàng an xamee gi yàgg na lool yaakaar naa moo war a mag fi toog ñëpp dañu di konte bokk ndey mm-hmm. <laughs> waaw waaw foofu la ñu waxante ba gindi ko ba gindi ngeen bokk ndey ñoom ñoo ñaar ba defee nag kàddu cant moom noonu rek lay xaw a toll soo defee ñu ngi leen di sant bu baax yéen gërëm ñëpp di yàlla yàlla na yàlla defal ñu ak baatin defal ñu tay siir ak taw féex ak na jaax ci yëngatu yëpp ci barke yonent bi kon mën nañoo ñaanal ñun suñ jullee timis fee mën nañoo jullee timis fii suñ jullee timis rek soog a dem dëgg yàlla bis bi lay sa ñaari jëwlin yii koo ci yabaloon mu doy sëkk koo ci yabaloon rek day doy sëkk waaye nga sa njaboot gépp ñëw ndax sa diggante ak Baye Jaxate ngir rek njaboot gi fa tabarakallah Baye ji bi yàlla ko gudd fan yàlla yàlla roof la wér bis bi saa bu ñëwee yamale wa koog lenn lu mu la fekkoon da koy bàyyi ñëw yendoog njaboot gi loolu nag li ñuy doon doon xale xam nañ ko ndax bis bi moom yàlla dogal na duñ ko manqué mokk ndax suñu diggante bàyyi bàyyi jaxat siise ak bàyyi alaaj yu siru te ñëpp nga doonoon seen kilifa yàlla yàlla dugal sa fan nuyu sa rakk yi sa wet sëriñ Cheikhou ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal yàlla na nga yàgg sa soppe suñu xarit sëriñ Aliou Seck macha allah nga xam moom dañ koo sopp ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal yàlla yàlla yàggal sa kanam mag nuyu rek le parrain du jour El Hadji Pape Mor Gueye dafa naa ku xam te xam li nga xam nag bis bi moom. waxuma la sax parrainage waaye moo ko moom démb tey soog a ñëw ndax yaakaar naa ni fekke wuñ ko de wala netti lañ na ko li ëpp ci carrière am fii la ko defee ci daaru gi ci kër Baye Ndiakhate Baye Ndiakhate bu ko mosaan a gis cere ba la koy xoolee te moom la loolu ñun xam nañ ko ndax kër gi nag duñu fi gan kon élage njaboot gi yëpp yaa ma gën a xam ne noonu noonu lañ la soppe njagam yi bu la gisee day tur ay rek wooñu loolu dem ba tax kon bu jëlee bi su Baye Ndiakhate la ngay paaye lii moom jekk na yàlla na jaadu na bu doon bit ma ni dugg na ci kaay bi fëq caaf fi ngeen ko teg moom foofu la El Hadj Mor yàlla yàlla dëgëral la defe naa dem ba ñu ngi jox ko yow ngir rek fa tabarakallah nu bis bi taaroo ku ne woo ko ci ñun ndax fonk goo fonk bis bii woo na Cheikh Ndaw man woo naa ko waxtaan na ci ba ba sànq bi muy agsi rek woo naa ko du ko defal nangam na te luñ ko wax nag mu def suñu mag la suñu xarit la ñu ngi ñaan bis bi yàlla nañ sa yokkute waajiran wa baatinan yaa Aïda ngi leen di nuyu baax di leen ziara تلك آيات الحكيم هدى ورحمة للسنين الذين يقيمون هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من سبيل الله عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب محيط وإذا تتلى صدق الله العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi nu ngi leen di nuyu gën jaa teddi nuyoo nuyoo bi nga xam ni moom la sunu boroom digal ñun ñu di ko joxalante ci sunu diggante muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyoo boobu ñu ngi koy jël di ko teg ci loxo sunu sëriñ sunu wasiila sunu kóllëre wayjur muy sëriñ jibri Seck ak mbooloo mi mu àndal yépp suñ aaleeg ñépp di leen jox seen wàccuwaay di leen ziyaara bu baax ci seen teewaay bu rafet bi teewaayu kóllëre teewaayu jullit ak mbokkum jullitam comme ni ko présentateur bi waxe muy sëñ Mansour wax na dëgg bis bi bisu kóllëre la ndax yàgg na lool li tax ma ni yàgg na jamono yi nga xam ni bu ma juumul ci li may wax sëñ Alpha Mamadou Seck ñun ñii daanan jóge ca daara ja ñëw fii ñu andi ñu fii ñu di leen teeru booba ñu ngi jàng nekk ay tuut tànk kon loolu yàgg na ah lu yàgg nag wolof yi dañ ni dëgg la kon loolu sëriñ bi ñu ngi leen ciy sant bu baax ndax su ngeen bàyyi woon bi fi ki ko sosoon jóge kon kenn waxatul gàmmu Baay Njaxat leneen la ñuy wax waaye kóllëre ga ngeen séqanoog moom dangeen ko jàpp wéyal ko ba tey kon loolu moo indi bis bii tey kon dañ leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci turu dëkk bi yépp nag ci turu aima yépp nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax yàlla gën leen fi yàggal gën a yokk seen taxawaay gën leen a dëgëral bu baax ndax yéen leer ngeen goo xam ni dangeen di jiitu ñun ñu topp ci seen ginnaaw a ah, ñuy sant nag bu baax sunu way jur wa muy bàyyi njaxat ndax wax dëgg yàlla bis bii daf ñu ko fàggul so da fonkoon ko lool nag daan ci taxaw gisoon nan ñim ci daan def ca booba benn loxo rekk la te booba dara daawul manqué ci bis bi kon loolu bu demee ba tey mu wéy ba agsi fii kon ginnaaw yàlla sunu bàyyi njaxat moomu la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni man sanna sunnatan xasanatan fa laha ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyaama wala falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama waaye safaan bayit wala iyaazu billah nee na ku sos lu baax ku ko sos nee na tuyaa bay lu baax loolee danga koy jot waaye du ca yem même boo fi jógee loola continuer di wéy nee na loola tuyaaba ja lum ca am rek yooyu da nga koy am sa kon dinañ fi dégg ni bis bii tey bàyyi njaxat fa mu tëdd ma ngay jot wàllam ndax yonent bee ko wax te yonent bi lu mu wax dëgg la kon nag bàyyi njaxat ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax waaye di sant njaboot gi it ndax wax dëgg yàlla ñoom it ah seen waajur jógewu fi rek ñu daal di fas seeni loxo yàccaaral waaye ñoom it dañoo jàpp bis bi wéyal ko gën koo taaral gën koo jëmmal kon ñoom it wax dëgg yàlla ah ñu ngi ci leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax li tax mag ñi daan sàkku li nga xamante ni si mooy njaboot bu baax moo tax maam Serigne Touba di ñaan ca ñaanam ga wahab lana dhurriyatan tudiimu al amala saaliha yaa xadiimu kon looloo ko waral mag ñi dañ daan sàkku ak njaboot gu baax ndax njaboot gu baax ku ko yàlla dénk même boo fi jógee lu baax la nga nekkoon dañ koy wéyal waaye ku fa bàyyi safaan it noonu wala iyaasu billah kon njabootu bàyyi njaxat wax dëgg yàlla la seen way nekkoon fa mu tegoon tànkam ñoo nga fa teg seen tànk ba tey kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom it di leen gërëm bu baax di sant sunu yaay yi dekk ci di des ci kër gi muy yaay Ayda ak yaa Mbeen ñoo xam it yal na leen fi yàlla yàggal waaye di ñaanal it sunu yaay ja yaay euh, kii ndooy yaay Fatou Ndooy ak sunu mag ja Birane Cissé ñu ngi leen di ñaanal fa ñu tëdd yal na leen yàlla dolli leer di ñaanal sunu baay njaxat yal na yàlla dolli ay leeram te dolli ko ay njëggal ak yërmande kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa bañ Euh, polomiser temps bi lu bari moo waral waaye li ñu li nekk ci ñun wax ñu bëgg koo wax ëpp na lii kon daal foofu la ñuy taxaw di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu allahuma salli wa sallim ala ayni huwiyatika al aqwam wa sirri iniyatika al azam wa masxari rububiyatika al aqzam wa masxari bahri uluhiyatika mutalzam sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tuharrifuna biya man damay consacré sama waxtaan tey li tuuti tuuti ci suñu diggante ak suñu wajur bi Baye Diakhate ndax dafa am loo xam ne ci xeeti ndawal sa wajur bu ko rëbbee dangay ndaw ci daaru xuddoos man fasu fuyóodat rabbaaniya bi fii dund bay njaxat moo ko fi indi te dafa jëloon tànkam di saytu fan la leer nekk leeru sunna ak leeru jalaal ak leeru jamaal doonoon nit nag ku xarañ ku bëgg boppam ndax benn melokaan lañ xam ci moom ñun moonu yar du ma wax sax kàddu njaxalaay njaxalaay waxee mais suñu kàddu ñun ñun ñi nga xam ne Baye Njaxate moonu yar ci keppaaru suñu yaay yii mu dem wutali ñu nooru jalaal ak nooru jamaal laxase ko sariyatul islaam indi teg ko ci suñu loxo ma ne seexu ceneba naxul bàyyi njaxat xëy na nag di nga tax di ngeen dégg ci may wax wala déet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee dafa ne utitu la ilma wala ilma wala ñu ne alquran dafa wax ne bal wa quranu majidun fi lawhin mahfusin benn bi mu ne arrahmanu allama alquran xalaqa al insanu benn bi ci des mu ni laa tuharrik bii lisaanaka li ta'jala bii comme su ma rakk bi daf ne jarul guddal dañuy wax rek cëslaay yi waate bàyyi njaxaat bi mu demee ba xam ne sare ya baax na lool waate il faut nga tëbb ndax suñu tariixa bi ñuy dund dafa laaj nga nàmputalu ci fiyodaat yi nga xam ne ñoo jóge ci adara yi mu dem cene ba root fa ndab lu diis indil nu ko ñu ciy bëgg nag ñun waa Daaru Xuddus su fekkee xam na li ñu am duñu ko foye ndax al ulama warasatul anbiya yi ca defe naa ni cene ba benn dëkk la ci senegal boo xam ne man de waxoon naa ko fi dinaa koy waxaat bin ma mayee sama awoo Touba Gueye lay jëkk fanaan bi ma fa fanaanee ci guddi gi ma liggéey subhaana layla azim di bihamdihi ci guddi gi ma gént gis kene ba bu nekk benn montagne or billahi si laa ilaha illa hu ci biir montagne bi maa ngi gis ay kër yuy déclassé ci biir di dugg ci adra ilahi yi dëkk boobu ku yàlla nërta gërëm doo fa dem xëy na suñu jiitoo gars yi day mel dañuy bëgg a gàmm ndax yàlla subhanahu dafa waxoon kuntu kanzan lan uxrif mu ne moom def na benn ndàmp boo xam lan uxrifu kenn xam fa xalaxtu mu bind xalxan benn mi def boo demee te na ko waa asraar yi tamit mu ne fa bii ci diggante faag yi ak baa yi benn yaay mu fi nekk ba calculé 92 la yonent bi la doon joxoon foofu. loolu moo neexoon mag ñu bëgg ko di ko gumutu xamuñu fu ñu koy wuti ji bàyyi njaxaat moom alhamdulilahi rabbil alamina lii mooy wax ne su loo xam ak fu yoo ak man fasunu reene bi ñu jëli woon fële ca cene ba daggul ca mi ngi feeñ ci ñi ndax man Birane Cissé mi fi jóge bu yàggul xol yi di ko jooy maa moom ñoo bokk lu parental waate waa Daaru Xuddoos ñi ngi gërëm bu baax Baye Njaxat Cissé di gërëm waa këram di gërëm spécialement njaga mi nga xam ni moo kàddu flambeau bi jiitewu ko mu réeraam liñ mën a wax lépp xajul ci bis bi dañ bëgg rek ngeen xam ne lii ñu ñu indi ñun waa Daaru Xuddus war nañ ko téye ak fukki loxo ndax yombul mag mu rooti ndab loo xam ni bi mu ko sottee ci ndaal yi loo ci naan du dëy du ngacc du jeex ma de galgalu mag nag dañ wax ne xale bu cuunee du ko laqar ci bàyyi njaxat fee mu tëdd ca cene ba dem nañ fa maam jaga mi mu yóbbu ba ma tiim ko waate ku ko gis tëraayam bu jekk ba nga xam ne ginnaawam ginnaawam tabarkal te gis nga liggéey ba liggéey jeex bàyyi fi trace rek moo am solo barke Rasulullaay jamono ba mu san xool biraan miraakalu Baye Njaxat bi lay gis ca loolu soo ko xoolee ci njaga moom ngay gis ñun ñii ñoo bokk yawandoo fii ci dingiri bi ci buntu kër gi Baye Jaxate daan génn fekk ñu toog mu jëndal nu sukkar ak warga jox nu ñu commencé naan abal nu sax ma ñu tafoon ñu toog kooku su rootee root nañu téyewaat bu baax li ñu yor gis nga salatul fatiha bu xajamee rek ki ko yor moo ko xajamal ndax gis nga su fekkee ne fuyoo daat bi ciy dox xale yi toog comme tikku nan ko xam dinañ ci gën a fuglu amaa nag nit ki sooy woteloo doonul wala ngay topp loo xamul sooy wootee loo doonul wala ngay topp loo xamul mën nga dem ba fekki li ngay woo ca doo xam ne àgg nga ca xam naa ni sama rakk nee na ñi ngi gàmm li ñuy def mooy sunu yaay yii yéen lañu am ay da ñu ngi leen sant di gërëm kàddu gi may waxe nag ñetti baat waa Daaru Xudoos yëpp laa koy wax ndax ku ci nekk tey amoon nga noo mën a taxaw sant ko bay jaxat ñi doon bokkal di liggéey ñim bokkaloon ci dëkk bi toog man de xam naa ni am na lu ma musal ca mi ngi ko jële woon ci darayrul xayraat xam naa ni damay bañ rek witte ci nag yi ba pare joxaat ko sëllu yi moo ko dama naan tekk ak moom njaga nañ dem guddi gi bu kenn wax lu mu xamul ca ku benn kenn olofal nañ wax ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu sante yàlla julli yi Seydina Mohamed sang-sang yi di door loo xame ni daanaka ni ñi fi jot a jaar wax na nu wax ji yëpp ba pare xanaa dañ ciy toppaat rek waaye duñ ci ñàkk sànni ay kàddu ndax wuurul ndax lu baax ku ko fekke dañ ciy jéem a laal ndax bis bu ñuy lim ña ko ña sos boole la ci hmm? ah saan wi nag bii yoon biñ ko sànnee daa yàgg ba ñu sànnee sànni dafa xaw a yàgg waaye yàlla def na kàng ji dégg nañ ko ren yàlla nañ ko dégg déwén dégg ko ay déwéni déwéni déwén hmm? tànt bi nag tey Pamor daa naqaree waxal ndax bu ñuy wax ci Baye Ndiakhate nga toog bu ñu góorgóorlu lool du ñu dem ndax amul lu ñuy xam ci Baye Ndiakhate te yow yaa ñu ko xamal wala ñu jaare ci yow ba xam ko gàmm gi nag kilifa yi fi toog tey di ko gàmm bu ñu dawalee seen xel dinañ xam ne yàlla ku doy la yàlla ku doy la ba yàlla hmm? seetal gàmm gi fañ ko daan tànt ña ko daan dirise Hmm? ba fii tey ma taxaw di wax lan moo fi jaar lu dul jàmm ak salaam ñu koy sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Ahmed di leen sant yéen yi parce que li olof di wax naan ku ñemee dañ laa déy ñun nag dañ da ngeen noo déy ba pare gungenu fu nu geestu gis leen te fu nu leen gis duñu ragal dara yàlla na leen yàlla fay barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme dañuy bañ a nag comme dañuy guddal dañuy bañ ko guddal nag damay dugg ci famille bi tuuti ndax tàgge bu nekk am na jàppal diw bu ñu nee Baye Ndiakhate day gàmm ñu ni famille bi dañuy wax xale yi nii ni ma yow la ñuy xoolee Baye Ndiakhate yaay wax loolu ku mu doyul dara du la doy hmm? loolu ku mu doyul aal yi dara du la doy may ñaan yàlla fayal ma leen ndax li ñuy wax. bu dee nax sax àll neex na ndax mbooloo mi dafa toog hmm? ñu jàpp ni man maay seenu Baye tey kon maa war a taxaw wax ci turu fam bi loolu sedd na sama xol guy hmm? ah nuy dugg ci famille bi nag ci sa nag buñ koy wax am na ñoo nga xamee ni loolu woykat yi daa wax naan ba àll bi ne tàtt kenn ñemewu fi ñoom ñoo fi xuus jàll te kenn gungewu leen hmm? muy jeeg ju mag ji nga xamee ni ñoo xàll yoon wi ba jeeg ju ndaw ji ñëw ba lii taxaw tey hmm? muy kër Baay Njaxat bu ma dee tudd kër Baay Njaxat kon damay commencé ci fàndoo yi dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te yokki leeram ñëw ci sama mag ju baax ji Aïda Cissé mbenn su ma ko tuddee xam naa dañ naan li muy soxnaa ma tax ma tudd ko mais dinaa ko tudd ñëw ci moom ñooñu ñoo xàll yoon ba àll bi ne tàj kenn ñi ñoo ñoo xaal yoon ñoo fi nekkoon ak bàyyi ñaxat muy metti ñuy xuus ba àll bi leer ba ñu ñun ñu nga xamee ni ñoo fi taxaw tey di wax wax ji yëkk jëf-jëf ji ñu ñeme ko bu ma fa jógee dugg kër biraan biraan bu ma fa duggee bu ma tuddee Nogay Mbay dafa mel ni yóbbaale na ñëpp hmm? ñu koy sant di ko gërëm Nogay jox nañ la sa wàccuwaay ak say rak ak sa njaboot la leen manqué woon ci biraan yàlla na leen ko yàlla mottali ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu fa jógee nag dal ci kër borom mbir mi parce que comme ni ma koy waxee tàggee bu ne am na jàppal diw dugg kër njaga kër njaga ku fi dugg di nga tudd faam hmm? ndax ba mu fiy nekk booba ñun ñi xamoon li fi nekkoon xam nañ li fi nekkoon ba tey àll bi leer nii nit ñi toog ñu yor micro di wax kon dinañ ko faama jërëjëf yaag say rakk ak sa njaboot yal na leen yàlla dolli yiw ak leer yàlla na leen toog ba njaboot gi aw leen ci barke lii nuy def ni yàlla nañ toog ba njaboot gi di ko def ci barke yonent bi ah, bu ñu fa jógee dem kër bàyyi Ibra tudd Xaddi Diop Fat Diouf ca jigéen ca góor ña bàcc siise buñ ko tuddee tudd nañ njaboot gépp hmm? ma xamal leen nag maa ngi leen di sant sant bu am commencement waaye amul fu muy am waxoon naa ko ci bitaale yi tudd magum jëm moo dundalul woddoo ko fajaloo koy soxlaam bu la nee yaay sama kilifa dëgg la hmm? bu la nee sama kilifa dëgg la parce que amul lu ma leen defal de amul kenn koo xamee ni tey jii yan saay sax nga xewle ma ñëw teel ka jamono demee noonu waaye terewul cër booba may seede ci mbooloo mi di seede ci kanam waa Canaba yi nga xamee ni ñooy suñuy wasi la bu ci man lu ci manqué rek ci man la waaye ñoom matale nañ lépp. matale dara des ci matale nañ lépp hmm? ah di continuer tam di sant mbooloo mi nga xame ni tey ñoo fi teew ngir bis bi ci kaw fi may séen xam naa xaw ma ñëpp waaye am nay bennet bennet yu ma fi mën a tudd seen tur ñoo xamee ni séq nañu wàllu goro parce que koo may jabar sa goro la wala ngay goroom mu mel ni Cheikh Tidiane Diène male ak Pape Diouf Mële ak ñi mel ni ak Souleymane Thiaw Mële ak sekk Mële toog ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di xamal ni gis nañ leen te gisuñu leen ak benn bët dañ leen gis ak ñaari bët jox nañ leen seen wàccuwaay imaam sañ Daaru buñ la tuddee daanaka tudd nañ imaam yëpp ndax yaa fi teewal ñëpp kon yal na leen yàlla fay yiw ah ñuy sàkk ku ñu ñaanal nag. dañuy sàkk bu baax ku ñu ñaanal ndax li tax ñu sàkk ku ñu ñaanal jamono bi daa bari pakk te yoon lu mu leer leer du ñàkki pakk may sàkku ci mbooloo mi fi toog yàlla ngeen ñaanal ñu yàlla lii ñu jéem maanaam muy xeer wu ñu sànni woon te sànniwoon ko bu yàgg amoon gàllankoor yu fi dox ba kàng ji ñu koy door a dégg tey yàlla na at mu jot le bu ne kàngi xeer woowee yàlla def ñu dégg ko ci barke yonent bi ah di ñaanal tam bu ma taxawee fii di waxit nag damay waxit bu nu sant yàlla suñu borom ba mu bari julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi nuyu képp ku fi teew waa ah, di jiital ci nuyoo bii nag suñu sang sëriñ Jibrilu Seck sëriñ Jibril ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay nuyu sekk Mori ndax dañ ñu desewoo puso bi mu réer tey defe naa ni njaboot bu sew rek ak jigéen ñoom nga fi encadré fekk si leen fi te bu fekkoonte ni bii lu bari luñ lay sotti la kon doo ñëw kon kóllëre la ak wàcc la dañ lay ñaanal Seeku Mor yàlla nga fi yàgg te wér yàgg say rakk sëñ Seeko ñu ngi leen di nuyu sëñ Ali ñu ngi leen di nuyu sëñ Ali ndey soxna ñaan si wunu ndékki ñaan si wuñu reer Seeku Mor yi sagal nga ko yal na yàlla dolli sa sag te dolli si sutura ah ñuy nuyu itam Pape Mor Pape Mor Guèye Pape Mor Guèye defe naa moom mooy taawu kër gi Pape ni ñu ko waxee noonu la amee Pape moom li mu xam ci Baye Ndiakhate sax defe naa ñun xamuñu ko ndax mën nañ dañoo dafa yaroo ci kër gi xam lu bare bari ci Baye Ndiakhate yàlla xam na ni kër bi xale yi di waxtaanee dañuy jox Pape Guèye cër bi man damaa ñëw ñu wax ma ko man de ah su ngeen ko ko joxee jox ko seen mag mu di fi def lu baax di fi wax lu baax xale yi xalaat. Pape jox la cër bi te cër bi yaa ko moom ñu lay gërëm di gërëm sa famille di gërëm Souleymane comme ni ngeen ko defee biñ fi daan nekk rek Ibou Guèye nekk fi bu ñu waxee Pape Mor mu ne Aydaay sama yaay Ibou Guèye ni Fandoye sama yaay ñu di ko kafe yaay googu moo woy Pape Mor ba léegi yaay booy la may wax Souleymane mii nekk fi di borom këru fàtki ne yaay booy la may wax heure bu ma ne yaay booy sama xel sori ma di ko yéene li ma yéene sama doom di ko oof ni ma oofi sama njaboot. wóor na yàlla ni yéen sama njaboot laa yemale ndax danoo yàgg tey nag dara ñaawul kon Pape maa ngi lay gërëm di la sant di la xamal ni bis bii lu la ci jox rek fayuñu la waaye may gërëm imaamu dëkk bi di gërëm imaam yi fi teew yépp di leen nuyu di nuyu chef de village di nuyu waa kër Sëñ waaye nuyu nuyu ñi nga xam ne rossi nañu fi te jàppale ñu ci bis bi muy ko mel ni tey monsieur Diène mi ci kaw nga xamante ni cadre la ci ICS. te ñu dara ñu soxla mu ñëw jàppu ci waaye ñuy gërëm itam association de retraités yi nga xam ne tey ñu ngi fii sama wet man nañu retraités yi fi nekk diggante daaru ak mbooro man mii maay seen trésorière dërëm bu ñu am man maa koy denc mësuñu maa jeex mësuñu maa càmbar ndaje mu mag mu ñu am seen délégation dañ ma ciy jiital su ma demee ñu jox ma kàddu ni ma waxal te lu ma wax doy na leen tey wax dëgg ay kilifa lañu kon dinaa leen sant dinaa leen gërëm ba gàmmu gii ñu nekk benn délégation bu ñu amoon au niveau Dakar ca Giro mi nga xamante ni defe naa kilifa bu mag la ci usine bi te ñu xam ko bi ñu demee keroog man ak ñoom a ànd bi ñu joxee président dama lay waxal bi ma waxee ba pare ni ah Giro damaa am gàmmu de mu ne ma gàmmu gi loo ciy def maa koy def vraiment jàppale ma ci gàmmu gi nag ba yëguma dara kon président maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di ñaanal yàlla di nuyu kilifa yi nga xam ne tey ñoo bokk koñ bi te ñu di Cheikh Ndongo mi di bàyyi Moundou di bàyyi Cheikh Thioune di képp kilifa bu nga xamante ne yaa ci poñ bi te bu ngeen ci njaboot bi ndax bu ñu gëstu gis ñu bàyyi njaxat léegi léegi ñu waaxu doxaw ci buntu kër bi dañ leen di xoolee bàyyi njaxat waaye itam dina am lu ñu ragal ndax dañuy junj dinañ jomba def lu nga xamante ni lu dul noonu la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm mbooleem ñi nga xamante teew si nañu fii ku fi teew si rek gërëm nañ la sant nañu la jàppale na ne yow tey ji wax dëgg fa yàlla mënuñu leen a fay dinaa ñëw tuut si njaboot gi may gërëm njabootu baay njaxat ak njabootu baay Ibra mun naa ne sax njabootu baay Ibra laay njëkk a gërëm ndax papa Njaga su ma nee lii ay rakkam ak ay doom baayam jàppale nañ ko bis bii papa Njaga da koo tiim waaye du tegu ci kawam ndax xale yi bàyyi dara lu ñu man def nañ ko gis bis bi taxaw ñoom ñépp a ngi taxaw suñu ginnaaw di Omar di bàcc si si ak rakkam Amine Ngom Fatou Diouf ñoom ñëpp a ngi fii taxaw waa Kër Baye Ibra njaboot gi ñoom ñëpp fi la ñu yendu di liggéey ci liggéey bi jàpp ne ñoom ñëpp bis bi seen bis la kon dañuy ñaan yàlla juboo gii ci suñu biir askan wi yàlla na ko yàlla lawal te yàlla nañ ci yàlla jàppale Papa Ndiaga nag euh, dama daan wax ne Papa Ndiaga Birane ak Mamadou Saas Mames ñoo yem bu ñëwee sarax sama ni sama digg la la ñuy toog amul lu ñuy def lu nga xamante ni bii wóor na yàlla wóor jëmmi Rasulullah duñ ko wax ak lu ñuy def dañ ma koy wax te dañu maa déggal papa njagal lu muy dina ñëw day ñëw ñetti yoon ñeent boo juróom yoon dina ko ñëw ca kër ga fu ma ne ma fekk ma roqo bu damay fekk ba sama biir wana bàjjen bàjjen te lu pour lu ma ko ne papa njaga def ko dina ko lu ma ko bàyyiloo dina ko bàyyiloo papa njaga yal na yàlla taxaw la yaag say rak yal na yàlla dooleel leen te yal na yàlla jàppale leen bàcc siise yal na yàlla dooleel leen yoon wi ngeen aw yàlla bu mu am pak sëñ bi am na lu nga xam ne Seck Mori bu ko ñemee yow ndax tey man ay Aïda bu ma nekkee président réseau national femme rurale du Sénégal dans les quatorze régions barke démb maa ngi wén maa ngi fële <laughs> dëkk ba nu mu sax maa maa ngi jógee euh, noo jagali ca ginnaaw ca përier biir euh, weer bi ñu passé bu ma nekkul Sédhiou maa ngi wéli ngaram te defe naa ni yooyu fit su ma ko amee sekk jàpp nga ci ndax su ñu feebaree nga ñëw taxaw te bàyyi loo doon def toog ba ka feebar wér papa njëga mi fi am nga ñetti fan ba ñeent ci biir néegam bii ba ngay dem tubaarikàlta ñëpp defoon nañu njagadu man mii danga may sang sekk muuri di ma jàppale sëñ jibi bu ma jimee am fit def li may def sekk muuri yéen la yàlla na taxawaay yàgg ñaani macha allah nangu na sekk maa ngi sant yàlla bu wér a wér a wér a wér bari lu ma doon xëccoo tey jii jot naa ci uma problème ndax defe naa ne booy wut 100 pour cent 90 pour cent yi ànd ak yow xalaatatoo dara te xam naa ne ginnaaw su yàlla suñu borom am na loo ci def kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla di ñaanal yàlla nag jeeg ju ndaw ji fi nekk ñëpp comme ni ñu ko waxee di ñaanal yàlla àndandoo yi ak waa Thiénaba yëpp dina xam ne ñun ay taalibe Thiénaba pire lañu sagar waa Thiénaba sax duñ ko foyee li wér te woon njaboot gi nag comme ni ko xale yi waxee noonu la amee ku leen ëf maay toxoñu ku leen ëf rek man ay damaay bu nga xamante ni. wax dëgg yàlla mënuma dul jàppaleen te yàlla tax may wax ne njaboot gi bàyyi njaxar jur njaboot gi Ibrahima Seydou lu ma leen yéene yàlla ci sama njabootu bopp jiitu kon du ma leen digal mukk lu xam ne leen di fakkatal mbaa mu leen maa ngi sant ñëpp jiyéen maa ngi wér euh, sant ñëpp di sant kilifa yi ci kaw di sant waa kër Tuubaa ku ma tuddul tam nga xam ne damaa ju màgget maa ngi leen di sant leen gërëm mbeel comme ni ñu ko waxee mbeel Seck sëtub sëñ Ibrahima Seck papaam ak sëñ bi ñoo ko baay papaam di mag amul lu benn doom bu jigéen muy soxna mbeen mu jox ko Baye Njaxat Baye Njaxat yor ko nu bokk yor mbeen seet bu doon góor bu toog wa waree toog xalifa day toog xalifa te damay dem bàyyi ko njaboot gi mbeen seere kër gi mbeen damay foogal moo may ruyal mbeen sekk bañu lu ma dara kon damay ñaan yàlla suñu borom njabootam gi mu am ci ci sa na ci yàlla teg loxoom di ko ñaanal ayda ba nag comme ni ko sekk waxe waaw ayda ba njaboot gi nga xam ne am na ci kër gi yàlla na ko yàlla yàlla na ci yàlla teg loxoom sekk yow dañ lay sant si la gërëm ndax xale yi xëy na amoo doole waaye am nga sa xel am nga sa xalaat ak sa disponibilité fu ñu la woo nga dem lu ñu la wax loo yaa nga ci seen côté kon dañ lay sant di la gërëm yow ci di la yàlla yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay ñun daal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp xam naa ne ku ñu tudd rek dañoo juum mbaa dañ laa fàtte waaye suñ sañoon ñëpp la ñuy tudd ku ne ci kaw tàntam gis nañ la ku ne ci ginnaaw gis nañ la dina sant jeeg yi di sant xale yi xale yi ñoom ñëpp a ma dégg jeeg bu mer su ma leen tegal nga teg xale yi ku ma ne tegal nga teg billaay wallaay ku ma ne tegal nga teg yal na yàlla fayal ma leen yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla taxawu leen ci barke yonent yàlla Muhammad ak ndaw kenn ku ne côté ba nga mënee jàppe nga ci moo tax bés bi taaroo nii kon dañuy sant waa koñ bi yëpp waaye di sant waa Daaru Xuddoos yëpp di sant aussi le maire de Daaru Xuddoos nga xam ni jàpp na ci bés bi ba mel nii sant les industries chimiques muy ICS ñoom it bés bi taxaw nañ ci jàpp ci niñ ci war a jàppee la GCO aussi sant nañ leen bu baax ndax taxaw nañ ci bés bi jàpp ci ba bés bi taaroo nii ah bu ñu limee nag du ñu matal ñuy wax ni rek bés bi képp koo xam ni teew nga fi ñu lay ñaanal yàlla lépp loo xam ni ñaan nañ ko fi yàlla na ko yàlla nangu te ful ko boole ñu ko ñun ñëpp ah du ñu jeexal suñu kàddu nag te duñu sant sëñ jagam yi nga xam tey jii bu ñu waxee rek lépp moom la parce que nag initiative bi ci moom la jóge te moom moo tamit jël responsabilité ne ñu bëgg naa bés bi ngeen taxaw ci jàppale ñu ci mu fekkoon ñu ci ndax comme ni ko euh, sëñ Souleymane Diop waxee rek dañoo judd fekk gàmm Baye Ndiaga fii ah ñu namoon ko lool bi ñu déggee ni jàpp nañu bés bi mu nekk fierté ci ñun nekk loo xam ni amoon nañu yéene ah mu dekkiwaat ci koñ bi ba kenn ku ci ne mébét yi nga ca am nga def ko ci kon dañuy ñaan yàlla rek ah yàlla may ñu ñu fekk ko ay at yu baree baree bari ñu dem ba fii ñu ko defee dootu fi xaj ñu xool fu gën a yaatu ñu ko fay defee te yàlla mën na ko te am nañ yaakaar ni incha allah édition yi ñëw mooy ëpp bii kon ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm eh, jërë ngeen jëf. muy di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sëriñ bi sëriñ bi ñu ngi leen nuyu di leen ziar. di sia di nuyu imam di nuyu chef de di nuyu mboolem koo xam ne rek teew nga ci bis bi di sant yàlla nag bi ma yàlla baaxee ma fekkee bis bu tedde nii maa ngi ci sant yàlla bu baax ah ñu yëkkati ay kàddu nag ci ndigalu monsieur le maire xam naa tuuti nañ trop ci wutu ko ci ginnaawam mais cër moom boo mu ko joxee nit moom faaw mu jàllale ko suñu kàddu nag du gudd kàddu cant la ak ngërëm ñuy sant euh, Fallou Cissé ndax suñu yaay Aïda Cissé ku ne xam na taxawaayam ci commune Darou Khoudoss suñ ñëwee fii fekk famille bi di wax ci moom lu bari moom mu jël wax ci famille bi lu bari dafa mel ni li mu liggéey moom da koo tàmbalee ci tànkam kon yaay Aïda ñu ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci yow bu baax te xam ni sa liggéey rafet na di sant sunu xarit tamit Ndiaga Cissé njaga ñu ngi koy sant bu baax ndax moom it wax dëgg yàlla sunu nit la mi ngi ci sunu wet bés bu ne dina jàppale ñu ngi koy sant bu baax di sant leen koo xam ne teew na fii di ñaan yàlla tamit ki nga xam ne moo waral bis bi yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yàlla na yàlla yeesal de ci kaw ñi sant bu baax mbooleem nit ñëpp ku fi képp koo xam ne teew nga fii yàlla na la yàlla fay defal yiw nga dellu ci jàmm ak salaam yàlla mën na ko monsieur le maire nag bu sañoon tey jii mooy teew fii bokk ak yéen bis bi mais ngant nag moom moo ko dab moo tax teewul fii euh, ñu ngi sant daal loolu lan amoon kàddu yoo xam ne dinañ ko yëkkati jàllale ko fii ñu ngi jéggalu ndigal rek day baax ok bu ko defee bëgg naa nga laalal ñu as ci ki nga xam ni moom lañ fas yéenee jox kàddu gi ndax am na luñ ko dàkkantalee borom ibnul muxay lañ ko dàkkantalee ah waaw ah, kon yoon la Souleymane nga duggal ko moom it mu ñëw allahumma salli ala muhammadin sayyidil bashar kuy nooyee seexu canaba rek yow ab sagam nga moo waral bis bi ñépp lañ ko tudde canaba gépp lañ ko tudde ca ku wax ku wax ku wax wax lu ëpp lii may wax waaye dama amoon yéene ñëw dugg ci kaar bi ànd ak délégation bi bi ma woowee fekk na El Hadj wax ma tàkkusaan waaye moom mii su ma woowee li war mooy ma nekk ab taalibeem ba keroog may yewi rakkam la ñoo bokk bàyyi waaye dañoo yiir taxawuñu macha di ñu tette dañ koy ñaane yàlla dolli jàmmam mboolem kuy tagg Seydina Mohamed soo ko déggalee kenn du la yërëm loolu nag wax la mboolem taggkat di bu ndaw di ko diglu doo rafle bi ci des it doo dëkk fu ñaaw waaw ku baax la dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cet musal ko li ñu li ñu war a def ñoo ngi koy def ci kanam waaye nag macha allah ku ku ñu wokk sa picc ginnaaw nga doxlu te li ñuy wax ci moom moo nekk Serigne Souleymane mii ku nekk dégg na bi mu yëkkatee ibnu wahib bi macha allah nga xam ni yàlla defal na ko cër yàlla na yàlla dolli sa jàmm Baye Mor nga dund téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne sans ordonnance waaw Baye signal yi nee na nee <laughs> li lim ñuy wax Pape Mor lim ñuy wax war nañ ko ko wax wax na ko ko wax moom. waaw Moustapha bi hubbi rasulillah na dem te ñëw waaw mais mën nga ko waaw waaw waaw Surah ñuy jëkk a def rek wax ni sëriñ Jibril mii ngeen gis mu jóg léegi dafay dugg ci biir yeesal njàppam dellu siwaat ñu bokk xam loolu ñun ñëpp waaye noo ko fi nekkal fa tabaarakallah mu ngi wax bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Pape li nga wax dina ñëw ci kanam nu ngi sant yàlla bu baax di ko jullil ci sangam bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, pap su ma sañoon sax délégation bi ma àndal dama leen di bañ a laal fenn nga préparer ko après nga présentel ma leen délégation bu mag mag laa àndal te samay bokki kese laa àndal xam nga kéwal xam ñëpp xam nañ kéwal ci mën a daw oustaz kéwal ñëpp xam nañ ko ci mën a daw dafa am nag benn kubu xaalis bu ñu tegoon xaalis bu bari mu tàllal loxoom daat ni ku ñëw rawanteeg man soo ma rawee jël ko mbott ni ko kaay ñu rawante mbott ku ne xam na ni ay xel kenn séentu ko ci mbott gaa yëpp ñëw ni mbott xanaa da ngaa feebar kii kéwal woon la nga di ko attake ci ay xel mu ne na ñëw ñu course maa koy raw na ñëw ñu course maa koy raw ñu ni course bi léegi léegi la mu ni déedéet na da ngeen may may tey la alxemes ñu ne ko waaw mu ne may leen ma ba samedi soir mbokk yépp teew àdduna bi teew ñu course ñu ne ko ah poste Thiaroye la ñuy jóge Thiénaba la ñuy arrivé mu ne d'accord na mottu nag dugg ci mbokkam yépp waxtaan ñoom ni leen dama attaqué kéwal ci course te dafa mën a daw luy seen xalaat mottu mu ne génn ni ko man mi mbott ni ko yow demal rek Thiénaba ca fa ñuy arrivé toogal foofu xaar dana niroo kenn xàmmewuñu benn mbott ni maa ngi poste caaro yi ca ca fa ñuy déparé benn ni maa ngi tëngéej benn ni maa ngi poste maa ngi maa ngi maa ngi euh, jam ñaajo benn ni maa ngi Thiès benn ni maa ngi Kër Magueye ba ñu àgg fu kéwul jub rek benn mbott ni tëll rek ñu ne mbott nga ca kanam ba kéwul jub si canam bi muy waajee arrivé mbott ma fa nekkoon daal ni génn doot dootu ñu ne mbott raw na ay ay mbokkam la àndal moo tax man bi ma jógee samay mbokk jóg tiitatuma rawatina nag fii ma jëm si du ma fi bàyyi benn mbokk ndax ay mbokk laa fiy fekk arrivé bi ñoom ñi may xaar ñooy samay mbokk may sant yàlla bu baax euh, di ñaanal Baye Ndiakhate Cissé wax dëgg su ma duggee ci waxtaan ci bay Jaxat da ngeen may mujj jéppi ma waaye gàmmu gii du gàmmu caaxaan de Pape gàmmu goo xam ni Baye Alpha Mamadou moo ko sos di ñëw di fi fanaan te magum Canaba xalif général buy jóg kàngam yi ko wër yépp dañuy jóg ànd ak moom fii ci néeg Baye Jaxat ci biir lañ daan fanaan buñ ñëwee li ñu xam lépp ci guddi gi dañ koy def ba asamaan set ñu yenduwaat soog a ñibbi mu di ko def ba jóge fi bàyyi sëriñ Momadou di Seck ñëw di ànd ak ñun ci loolu ba jóge fi gàmmu gi pap gàmmu gi gàmmu nañ ko ba fajar bàyyi sëriñ Cheikh Sarr xam ngeen ko mu ñëw ci fajar gi dal ne ah man day ci fajar gis naa sëñ Ibrahima Seck mu ni gis naa sëñ Ibrahima Seck ci ndiir yi niir yi di saxar mu sol benn turki njaay xam ngeen luy turki njaay mooy li ma jiital ci biir nii mu am njamput mu xëcc ko takk ko ci ginnaaw bu weex dinaaw ci niir yi di ñuqi ay nit su ma gisee mu ñuqi kenn bokk ko génne ko ba ca biti ca ferme mu sànni ko duggaat génn keneen ma ne waaw lii lan ñu ne ma dafa am benn xasida boo xam ne dañ ko fee woy ca si Ibrahima Seck suñ ko wayee ña nekkoon ci safara dina leen génn ci safara yóbbu leen aljanna dama koy bañ a tudd léegi ngeen di ci dugg dinaa ko tudd mais ci kanam ngeen koy way Cheikh Ibrahima ta xam sëriñ sëriñ bi nee na balaa looloo set képp ku fi toog kàddu gi wax balaa set ku bëgg a gisee borom yaaram ma nga ne ëllëg kaay dara ba pare indi leen fii ñu andi jox tegal ci taabal ji ba bari yaa ko bokk ndeysaan sëñ Ibrahima Seck borom ma nga neex borom siidi borom gaynde borom noor borom borom ku yab daal jënd ko daal ñëw leen jokki jëloon ñàkk a tedd Serigne Baye ñu ab kenn du borom yaram Serigne Baye El Hadj Ousseynou ndeysaan ab Baye ma ko may ma ko fukki fas yi naa di góor ak ñaar Baye Ibrahima moom ba nga xam ne sëñ Ibrahima ko tuddee boppam

waaw waaw ah bàq bi tooy na di ji leen ku bëgg bu nekk jotee nga nekk borom yàlla moom moo la neex borom loor bu njëkk nga bàyyi sëriñ Ali sëriñ Cheikh kenn borom yàlla maa ngi sëriñ Ibrahima Mbaye ak sëriñ Ibrahima Ndiaye sax maa ngi sëriñ Alpha Mamoun ndeysaan drapeau Sénégal bi diw ba ca borom yàlla moom la neex moo ko ca def. moo ñu Senghor defal noo ko ci ndax mu représenté diine sëñ Ibrahima Seck borom bagaan gi nga xam ni ay fu ko taaj bagaan gi nga xuloo muy ay bu ko fekkee kooku El Hadj Pape Mor doon wax ku nu wokk sa picc ginnaaw nga doxul ma la ko wax la sëñ Haaji li ci tànt bi ne mu gis sëñ Ibrahima Seck muy naaw ci niir yi di génne di sànni ci féex mi mu ni lii lan la ñu ni ko sëñ Ibrahima Seck la xasidaam boobu ñu doon jàng fu ñu ko jàngee ku fa sabara yeyoon dina ko génn dina ràmm at mooma jàll ñu ñëwaat ci meneen at gàmmu gàmmu gi ba àggaat ci heure ba ñu àggoon alaaj Ousseynou bu jàngaat xasida ba xam ngeen bàyyi kàbbu ñan sëñ Ibrahima Seck palaasam ci yàlla ñu bari xam nañ aarif la nitu yàlla la woon mu wax lu yéene moom itam ca beneen adem mu ni Pape yaa ngi dégg. dëgg la ma leen wax bind leen ko. wallaahi bi mu daanoo gis naa benn fas bu weex bu jóge ci si. am ku ci war bu ñëwee ni coppeet kenn yóbbu dellu si waat ni coppeet kenn yóbbu ba tant bépp benn nit boo fi def bu mu fi bàyyi Pape déggoo ma ma ni mu wax ni tànt bi kenn la fi bàyyi jëlu ko kenn la fi bàyyi jëlu ko man nag li ma yéem mooy man yàlla daf ma caa dimbali man xam nga bu ne tant bi ñëpp fas yu ñëw na jël leen par kenn ba mu des si kenn koo xam ne fi la ko fas yu bàyyi jëlu ko ku nekk di xool sa morom naan mbaamu kii la fi bàyyi du yow waaye li ma yàlla dimbalee mooy ki fi fas yu bàyyi wallahi wal quraanil azim moo ma wax ni ma Pape Mor ma ne ko am mu ne ma man mii lañ jëm barke salaatul faatiha mu ne ma teel ñu li teel jël ma maa ko def billaahi mu ne ma man mii la fas wi jëlul man la fi bàyyi te Pape Mor li teemu jël ma maa ko def gàmmu giidu du gàmmu caaxaan mu ne allah taala ko nettali Baye Yamar Ñang gaañoo Yamar Ñang ba mu gaañoo Ndar. si Ibrahima Seck dem. si Ibrahima Seck dem. nee fanaan. nee fanaan. ñu wasifa ñu xëy Baye Bakar Sarr nuyu si ko. ñu xëy Baye Bakar Sarr nuyu si ko. si Ibrahima ni ko Bakar de. si Ibrahima ni ko Bakar de. man de waaru naa yéemu naa. man de waaru naa yéemu naa. defoon naa ni diw taalibi Seexu Canaba. defoon naa ni diw taalibi Seexu Canaba la. wante yàlla wan na ma waaye yàlla wan na ma. bi ñuy wasifa bi ñuy wasifa. dañ koo fekk ci biir jàkka ji koo fekk ci biir jàkka ji. génne ko jàkka ji génne ko jàkka ji. ba ñu wasifa ba pare ba ñu wasifa ba pare. ma ni gii gaamu du gaamu bu ñuy caaxaane Baye Ndiaga gii gaamu am chance mooy bokk ci téye parce que ay mat ñoo ci ñaan bàyyi nga xam ne yàlla ndimbal lu wér bàyyi nga xam sowdu bu ndaw la amoon bàyyi nga xam tuuti la amoon ay yi xam na ni bàyyi nga bu fay ko fin du balaa nga huit xaalis ba jeex li xam naa ko de ma ne bu fay ko bala ñoo àgg le huit le dix xaalis ba jeex tàkk damay bañ ci bis bu mu fay koo lay jeex waaye xam naa ni balaa la dix moom xaalis ba jeex yoonam nag nekku ci góor gi daan jaay yàpp bi nu mu tudd ayda bàyyi ma jóg bis bu ne mu ne ayda demal ci bàyyi ma jóg ayda nag mooy xam nu mu def ba dem ci bàyyi ma jóg waaye bis bu ne dina dem bàyyi njaxat ku bëgg njaboot la bàyyi njaxat ku bëgg diine la bàyyi njaxat ku gëm canaba la bàyyi njaxat ku yaakaar canaba la bàyyi njaxat dafa ma doon wax ni ma Pape Mor ne ko ah, mu ginaar su duggoon sama kër ni ma canaba laa jógee ma def ko ni may def sëriñ canaba yàlla dimbali ko woon nag bàyyi njaxat ak soldat bu ndaw boobu yàlla boole ko ay kilifa yoo xam ne dañoo dal bàyyi njaxat jàppale ko Baye Cheikh Sarr mii ci la bokk Baye Mor Sarr magam ci la bokk Baye Bada Cissé mi nga xam ne moo bokk ak Baye nga xam lépp ca la bokk ah ñoo bokk ndey ak Baye waaye Baye Ndiakhate amoon fii ay taalibe yoo xam ni Baye Samba xar na ñoom ca Taïba ak ñi ko waroon fii ñenn ñi ay gorom lañu ñenn ñi ay xaritam lañu Baye Ndiakhate lu ñu mas a song ñoo moom ñoo ko ànd waaye Baye Ndiakhate nag amoon ci biir kër gi ay gaynde Ayda sama yaay. wax nga dëgg de Baye Ndiakhate dafa bëggoon canaba ba man moo dem canaba laaj ma sama papa ñëwuma fi par hasard de dafa dem dafa ñëw ba canaba toog ak sama papa ne ko damaa bëggoon nga jox ma sëñ moom sa papa ah, loolu la ci xam fekk may jógee Abidjan xale bu góor nag laa mën a yem sama papa jël ma teg ma ci loxo Ndiakhate Cissé ci ndigalul sëriñ Alpha sëriñ Alpha di ku baax bàyyi nga xam mu ñëw mu wan na usine bi tey ba wan na ICS ni ma fit ak xel moo ci des bàyyi fa jël ay papier en tête yu bëri mu def ci cachet signé ko verge jox ma ba léegi am naa ci yoo xam ni defuma ci dara ni ma lépp loo xam ne diina ji na ko nga war a bind kilifa bindal maa la jox autorisation Ibou Gueye fekk si ma fii mm-hmm. mujj ak soxnaa mag ñëpp cheikh mu fekk si ma fii ak famille yëpp jabaram ak i rakkam ak ñépp man tam sama rakk yëpp fekk sama fii ci sol bu bàyyi njaxat bu ndaw boobu ñun ñëpp mu boole nu yor fii bàyyi njaxat jàmbaar la bàyyi njaxat ak ay jàmbaar te barkeel ci loolu bëgg ca na lool nag soxna Ayda jàppale loolu bàyyi njaxat yaa faat ndooy doon taalibe doon koo xam ne kenn xamul lu mu bëgg raam ci suuf bàyyi lépp ak ay rëcc muy doxal soxna mbenn nii bàyyi nga xam gëmewu ko woon ndax li mu sant sekk yàlla xam na ko bu ko daan xool sax boo boo fa nekkee yaram bi day daw mu bëgg ko yërëm ko ay de système yi xam loolu bi bàyyi nga xam génnee àdduna mu ni mbenn du fi génn fii lay toog ci kër gi maa koy yor jërëjëf Ayda yàlla yàlla taxawal la yàlla yàlla sàmm la ah Grand Cissé ak i magam yu jigéen ak i rakkam zéro fa bàyyi njaxat lii rek la bëggoon bàyyi njaxat yii rek la bëggoon bàyyi njaxat dem na biir suuf mais bàyyi njaxat mu ngi dund parce que doom yëpp koo ci jàkkaarlool di nga ko naw xam ni kii joom jawan ca bàyyi njaxat mi ngi ci moom bàyyi njaxat yàlla na yàlla dolli ko sutura fi mu tëdd barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Souleymane wala Pape dinañ ma présenter sama délégation waaye sama soxna yi moom kenn doyuma ci màggat nag ma baal nag tey dégg ma lay bàyyi ñoom Souley. da may ah, déggoo tudd naa màggat may ma dinaa ñëw màggat bàyyi ma ak sama femme noonu quoi léegi damaa ànd ak samay soxna bu kenn bank baaraam nag ku ma limal laay bañ. gars yi tam nga ne diw ak diw ñaan a ah, am na ñeent am na juróoma waaw foofu lañu ci foofu lañ jëm dama ànd ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm soxna ndeysaan fu ma ne rek ma nga fa nag xam ne yàlla jéggal ko njabootam ñu ngi fi fa tabaarakallaahu soxna aji njaay mi ngi fi njabootam ñi ngi fi soxna Fatmata Cissé mi ngi fi soxna na Seynabu Puy mi ngi fi soxna Ayda Njàng sama soxna mi ngi fi bu leen ma lima bu leen naan pap juróom la am ak juróom benn bàyyi leen noonu rek soxna Ayda Njàng mi ngi fi soxna Ndey Ami Seck mu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane mi ngi fi soxna Mareetu mi ngi fi soxna Yacine Fall mi ngi fi daanu ko ma fàtte soxna Kine fi laa ko fekk mi ngi fi ñooñ ñëpp nag samay soxna lañu kon dafa mel dañ ma bàddil de xanaa kon bàddil nañ ma jeex na may gërëm nag sama rak sëriñ Njàmme télévision bii mooy Thiénaba TV moom dafa jàpp mu boole ma ak xale bi pour liñ fi nekk lépp mu jël ko Modou Fall gërëm Souleymane Guèye Moustapha Guèye fa tabarakallah alaaji maar xale yépp màgget maa ngi lay sant di la gërëm am na ku doon wax fii léegi oustaz xaw ma kan la ci orateur yi mu ni ku am mu ni mu ni mu ni euh, maanaam ku mën a demal boppam am xaalisam am léppam ba pare nangu ñu yilif ko def de ko wax màggat dafay sama rakk liggéey xaalisam ba mu bari tant de millions nag laa wax tant de millions ba ba ba ma ba ma jëkkee yurundu compte bi damaa tiit mu defal ma procuration jox ma incha allah mu defal ma procuration jox ma di ma defal lépp nag lañ sa bu may watoo sax Paris la koy jëlee def ko ci conteneur yi mu ñëw kuy yónnee lañ set kenn waxatul kafe kenn waxatul meew kenn waxatul leneen kon kii mënuma koo fay ñaanal leen ma ko ñoo bokk nag ndey ak baay waaye li ma gën a neex mooy bàyyi bàyyi Talla gay sekk mii ma àndal mu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane di sama rakk di sama doomu nijaay di sama jarbaat di sama xarit ñu tuddee ko sama baay mu ànd ak man gunge ma yaru lool bari xam-xam fa tabaarakallah sëriñ Modou Ngom Diop mu xàddam bëgg lool sëriñ Assec borom digal di borom turu yàlla fa tabaarakallah moom itam mu gunge ma sama doom jëlee sëñ Daam Ngom yor daare sëriñ Daam Seck moom itam mu ñëw gunge ma fa tabaarakallah ñi ci des sama rakk itam mi ngi ànd ak man di soxna Fatima Gueye bu Oustaz Alioune Gueye fa tabaarakallahu di sama soxna nag boole ci ndax sëriñ ma dikkee fa tabaarakallaa moo koy denc sëriñ ma dikkee yaram wu naqari moo tey mu ànd ak man mais bu du woon loolu fu ma toog mu toog fa maa ngi sant ñi mu gunge ñëpp sama jarbaat yi doomi doomi Amina Gueye yi ñoom Issa Ndiaye ñoom ñëpp ñi ngi fi waa kër Dial Gueye ñi ngi fi Dial mooy suñu mag bàyyi coon ñoom ak xale yépp ñi ngi fi fa tabaarakallaa waa kër Euh, Amina waa këram Ndey Faatu ñoom ñëpp kenn manqué kon damay yem foofu ci lim bi euh, ñëwaat tuuti nag sëñ Ali su fekkee may ngeen ma ko parce que ñun ay missionnaire lañ sa sëriñ ba Baye Ndiame Guèye dégg naa sax nga koy nettali njabeen jamono ju ma masaan ne dareet ci daara ji mu jox ma mu jox ma bind ma dem ma yóbbaale bind ma benn bis. damaa ñëw pap nuyu ko mu daal ne ma sëñ Mor ma ne ko mu ne ma al sa jaaro loxo ma ne ko mi ngi nii mu ne ma waaw ñaare de yéen sikarkat yi fii ngeen koy def bu ngeen di sikar def nii ah moom ko wax de def nii bu nekkoon fii sax nga xam ne ci biir lay ne di nga ko wekki def ko fii pour wane nii mi ngi ñuy tiireloo attention ñu bàyyi ngistal ak tiitaru ci biir sikar si moo taxoon may wax loolu ma ne ko waaw mu ne ma mën nag li ma jaaxal démb ma ne ko ah mu ne ma dafa am benn waay bu fi ñëw di sàkku ndimbal yéreem xottiku waaye li ma jaaxal mooy dane ab sikarkat la ma ne ko ah mu ne ma ab sikarkat yéreem du xottiku du sàkku dimbal day dimbalee moo ko wax de zikar nag sunu maam ju baax ji Seydul Mujaahid maam Ahmadou Ndaak Seck xam nga oustaz képp ku ne li nga am boo ko xamul di ko fowe ba mu wadd nga ñàkk ko keneen for ko te boo moytuwul la ngay jëliwaat la nga wàcc moo ko gën mat ñi sam papa daf maa mas wax ni ma sëñ Mor ma ne ko ah mu ne ma am nañu fi xam yàlla fii ci dëkk bi ma ne ko waaw ah, mu ne ma xam nga ci ban baat lañ ko xamee man na ko déedéet mu ne ma ci tafurlaa tafur waxul astaghfirullah de mu ne ma tafurlaa lañ doon wax ba ubbeeku ne ko ah papa mu ne ma amuñu woon maxaarijul xuruf mënuñu woon a wax astaghfirullah tafurlaa lañ doon wax ba xam yàlla xam yàlla gu wér. yéen nag da ngeen koy bind maas ko dara du damm ñu lirabloo leen ko ngeen lirab ko ñu firiloo leen ko ngeen firi ko nangami millions yi astafirlaa mën ngeen koo def fi ngeen taxaw du ngeen fi jógee ma ne ko loo tax papa mu ne ma pas-pas ngeen amul mag ñi dañ daan jël ku ferul ijji jàngul dara ñu def ci moom pas-pas téye ko ñetti fan mu ubbeeku digganteem ak boroomam yoon woowu nag mooy yoon wii ñu mag ñi teg xam nga góor gi keroog bi mu jógee bi mu jógee bi mu jógee dem kam doon fekki di maam Cheikhou maam Cheikhou Amadou maam Cheikhou amadu nit ku war a am njariñ fa muy déparé mooy làpp fexe ba làpp ci yaram làpp ci yére làpp ci place góor gi su daan dem ci toilette bu jëkk satala moo xew ak wurmbal mag ñi dañ daan jël seen satala nañ ma déglu bu baax laab lay jàngale ca mag ña nañ doon moytoo sobe suñ masaan jël satala gi ba egg si fi ñuy tuure ndox dañuy jël satala gi teg ko nee ci seen ginnaaw tuur ndox dégg bi ne sëñ bi ne ne dañuy ubbi rek mu sotti ko suñu si kaw mag ñi ma ni teg nee satala gi tuur ndox ba ferme xam ngeen lan mooy ferme bari na ku saw ba pare jàpp ba pare ba mu laata wax allah ku bari njàppam toj na sobe la julliwaale parce que dafa taxawul ba sobe sa deñ ba set wicc mu soog mu sog a siw soog a jàpp bu ñu tuuree ndox ba ferlu ba pare dañuy dellu ginnaaw laa sa tala gi daj ko parce que dañ koy bañ a teg ci seen wet tuur ndox mu ciy tis moo tax ñu làq ko ca ginnaaw jël ko wis ko yére yi ñu daan sol sëñ Ali jigéen ñu ci bari fii nañ ma baal fóot lañu man mais laabal yére mënuñu ko parce que jàngaluñu leen ko te fóot ba mu set nga paase daakaande ak laabal yére du benn loolu tam yéen gàmmukat yi ngeen di ko wax suñu maam nag maam Cheikh Amadou ca dex ga ñetti njegamaar la tànnoon njegamaar mooy jigéen ju am doole te commencé gu la gis baax ñoo daan jël ay yéreem di ko laabali ca dex ga ñooñu nag fa ñu doon taxaw di laab fa la eeru zikrullahi wàcc ci ñoom man fii laa toll gaa yi léegi jël nañ si kar si bàyyee naa ko ñoom parce que nag wax dëgg yàlla borom kudd bu lakkee moo ko tey borom kudd bu fa bàyyee kuddam di dugal loxoom bu lakkee moo ko tey ñetti njegamaar yooyu ñetti picc la yàlla yónni yoo xamante ne melokaanu picc lañ yor ay malaaka lañu ñaare bu ma koy nettali dama naan gars yi nag ak ñoo mën a weddi waaye picc jëkkut a dox mission keroog alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yajal kaydahum fi tadlilin wa arsala ba noonu bi yàlla ba ni day toj kaaba gi yàlla ay picc la yebal jox leen ay xeer yu jóge ci safara si jiin ñu fudd seen digg mais keroog missionnaire yi itam ay malaaka la woon waaye ay picc lañu woon parce que if yàlla bul yónni ci yow day yónni koo ñime koo mën a wax bu malaaka ne woon dara fii léegi kenn dootu dégg picc yi daal di wàcc naaw tiim jegamaar yi sama nijaay Jóob Baaba dafa daan wax naan looy jàngale way ko te jàngal ko jigéen moo koy gën a jàpp bañ tax na njàpp dafa daan wax naan loxo gémmiñ bakkan kanam loxo bopp nopp tànk loolu mooy njàpp loxo gémmiñ bakkan kanam loxo bopp nopp tànk njàpp a ngi noonu loxo gémmiñ bakkan kanam loxo bopp nopp tànk nga mën a jàpp picc yi sëriñ Seexu ñu naaw nii tiim njëgamaar yi daal ne astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum loolu kat fi la ko maam fekk sikar astaghfirullah waaye culture mag ñi dañoo bëggoon seen culture kenn ku nekk da bëggoon fi ne bu ñu takkoon suñuy bët ñun ñëpp ab daayira jaar fii takk ay rajo ku ñuy wax ñan lañu waa Tiwaawan bu ñu takkoon suñuy bët beneen daayira jaar fii léegi dóor ay xasaay ci maam suñ Touba ñu ni ñu day waa Touba lañu mais bu fi wàcce na ba rombeel wax li ma waxoon léegi ñu ne wàcce na ba ñoo fi jaar mag ñi kenn ku nekk sa culture da nga ko wax da ko doon ñaan yàlla di ko ñaan yàlla ba yàlla jox la ko nga téye ko booba nag culture bi maam doon ñaan moo wàcc ci keroog xale yu jigéen yi ah maam toujours ñuy dégg mu naan astaghfirullah al azim allazi la ilaha ay xëyum waa nañ déglu picc yi ñëwaat raafalewaat beneen yoon astaghfirullah لا إله إلا هو الحي القيوم jigéen ña sikkar ko daal di koy capté ñu tourné waat ñëwaat daal di la ilaha illallah la ilaha إله إلا الله لا إله إلا الله jigéen ña capté ñu naaw dellu siwaat daal di yëkkati salaatul fatiha bi allahumma salli محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم ca kër ga daal ni maam mun leen la bay ñun daal li ngay li ñuy dégg nga di ko wax muy astaghfirullah ak laa ilaha illallah ak salaatul fatiha bi ngay jàng maam ay picc ñoo ñëw ñetti picc ñoo ñëw ba tolloog ñun di ko way way yu neex góor gi ni bërët toog ni leen mbaa jàpp ngeen air yi ñu ne ko waa mu ne wax leen ñu wax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin li ma doon ñaan yàlla mooy sama air yi bopp yàlla indil na ma ko daan ni jigéen ñi dinañ ko wale ca dinañ tudd di ko dinañ ngénte di tudd di ko di ko di ko sikkar dinañ ko robe dinañ ko fowe ci loolu la cana ba nekk zikkar soosu nag moom lañu mag ñu indil moom lañ ñu bàyyeel képp ku ci jàpp te téye ko incha allah ku dem nga dem ku demul nga dem bàyyi a sekk yàlla yàlla guddal aw fanam gën nañu dàggiwaat daf ni fexe leen ba journée bi quatre heures yi li ngeen ciy wax seeni soxla na li ngeen di wax laa ilaha laa ëpp loolu ku ko topp am dimbal de su ko defee kon loolu rek laa bëggoon boros muy am njàng moo xam ni daf nuy dàggiwaat ñun ñëpp nu xamaat ni kër gi du këru caaxaan kër gi kër gi du këru caaxaan kër gi du këru caaxaan kër gi oustaz mi wax na dëgg loolu nga gisoon jum yooyu di jóg mooy dog yi nga xam ni salaatul fatiha bi mag ñi sama pa sama pap Ndiame daf ni ma keroog bi ma sa maam wër gay joxe salaatul fatiha la ma joxaale junnib salaatul fatiha daal ni ma nag loola nag a yéeme la lam ca teg daal ni ma nag keroog bu ma ko joxee nag ak bisub tey jii fàttalikuwuma fu ma ko jëlalee mais xoolal dëkk boo xam ni. tant de personnes ñoo fa nekk ñoo xam ne kenn ku ne boo xëyee di nga laasim suba di nga laasim ngoon di nga def dogu junnib salaatul fatiha ak yeneen yeen cay teg booba dëkk ku fa de ku fa nekk ñun ñii sax dañuy defa ne dañoo def dara ay jàmbaar lañ pap duñu duñu ay jàmbaar de mag ñi li ñu fa tegal moom la ñuy jël rek di lekk yàlla nu yàlla fayal leen ko defee kon sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV wali say bi ahadun yàpp xiran annasuunahu